lahu man yudlil fala hadiya la mbokk yi ñuy teewlu ci suñu tegtali asraar yi ñuy def ñu ngi leen di ziyaare waat bu baax a baax a baax xam naa gaa yi nga xam ne ay borom xam-xamu asraaran maa ngi leen di jéglu baax ndax la waykatu arab boo waxoon ne rek ne walam akun juzayla hada alfanni wa ma alayya lawmuhu li anni suxiltu binnahwi wa bilbayaani wa inna haadaani la saaxiraani tawran axu jiddin wa tawran aabisu xata ka anni lil anaami waarisu euh, ñëw ci benn secret boo xamante ne lii moom la tuddee ren ba déwén lekkare bi moo tudd sekkareb ren ba déwén yu naa c'est alhaaji mujib Diop imam ratib bu Louga daana ci wax lu am solo mu ne ko euh, ñaari ñaari tur yi sax dafa ku ko liggéey ren ba déwén boo amuloon dara da am loo mën a da nga am loo mën a génnee asaka maanaam da nga matal nisaab ko xam ne yoroo woon dërëm boo liggéeyee sekkare bi ren ba déwén yàlla mën laa suturaal nga mën a am loo génnee nisaab incha allah rabbal alamin bu ko defee li may préciser ci lool rek mooy nit ñi nañuy bàyyi xel ne zikkër dafa am lu koy dimbali nit mën na la jox secret bu wér nga jëfandikoo ko gisoo ci résultat fekk sa yaram moo taq yaram day set bu yaram setee yaram bi neex mooy waral yaakaar dootul tas da ngay nelaw normalement di mën a jaamu yàlla normalement di am xaalis normalement muy toog ci sa loxo normalement ngay mën a nekk ak nit ñi normalement doo gedd doo énervé wu doo gaaw a doo gaaw a gis sa bopp di nga mën a jëflanteeg doomu aadama yi ñu sopp la te bu ñu ñëwee danañ la mën a jariñ te njariñ la mën dina mën a sax ci sa loxo foo jublu sa yaakaar du fa tas loolu li koy maye mooy yaram bu neex ak yaram bu set joxe naa ci misaal ba tàyyi ku sa yaram setul man li may partage bu dee zikkar la mën ngaa tege ne à côté ba sa yaram set nga doo ko tàmbali kon yaram bu set moom la nit war a ñaan bu ñaanee bu ko bu ko defee nag day yombal ay nga mën a def nag say zikkar ndax damay saraxe sangu mooy raxas sa yaram ba mu set ndax booy zikkar da ngay am leer nit ñi dañ lay sopp day tasaare sa tur day yéeg ci malaaka yi ndax yàlla suñ borom boo ko tudd lu bëree bëri yàlla nee na ana jëli su man zakara nii yàlla nee na ki may tudd bi may tudd mi ngi toog ak man zikkar kat mi ngi toog ak suñ borom malaaka yi bu ñu xëyee ci mbedd yi yàlla tamit suuna ahlu zikri dañuy wër ci mbedd yi di xool tudd ko te yàlla yi di demaat ci yàlla di wax bu ñu yàlla yàlla leen ne ko diw mu ne diw lu muy def te yàlla miy laaj moo gën a xam ñu ne ko day tudd yàlla mu ne lu tax muy tudd yàlla di zikkar ñu ne ko ah xanaa bëgg la mu ne ndax gis na ma ñu ne ko bu a ne lu muy ñaan ñu ne ko aljana ak xéewal mu ne ragal mu ne safara yàlla ne leen ushidukum bi anni la maa ngi leen di seedeel ne man yàlla jéggal naa ko moo tax nag yàlla danaan yeneen yàlla suñu di dem ba bëgg la bu la bëggee day woo jibril ne ko diw mii bëgg naa ko waaw day jibril day woo jibril ko diw mii bëgg naa ko jibril ne ko ah man it de kon bëgg naa ko yàlla ne ko na nga ko bëgg wax malaaka yi nañ ko bëgg malaaka yi bëgg mu ne wàcceel ci suuf képp ku gëm ne sama man maa yàlla yonent bi mooy yonent bi na ko bëgg mooy tax léeg-léeg nga gis zikkarkat boo xam ne nit ñi duñu am sago ci moom dañuy am cofeel dañ koy bëgg ku la gis rek daf lay bëgg ku la gis zikkarkat dëgg dëgg am cofeel da ku la gis daf lay bëgg léegi nag noonu la nit ñi di bëggee nag noonu la la jinne yi di bëggee bët yeeg làmmiñ yi day bëri ci yow loolu nag mooy dem ba indi blocage tëj sa yaram maanaam da ngay mën a zikkar sell mën a jaamu yàlla fonku lawraat yi waaye da sa affaire day day mel ne day am blocage tuuti da taxaw loolu nag yaram bu ñàkk a set moo tax da ngay sangu yaram bi set ngay saraxe sarax bi mooy waral lim la tàggatal moom zikkar bi ci raw rawxaan yeeg ñi la sopp la ca baax mu indi la ko la ca bon mu seggal la ko ba du agsi ci yow ndax sarax dafay fànq bon bon yi kon nañuy sangu di zikkar buñ ci mënee boolee suuru sax ñuy suuru ak di saraxe sangu sikkar saraxe suuru suul sangu sikkar saraxe suuru suul sangu sikkar saraxe suuru suul dégg nga secret bi nii nga koy liggéeyee kuy toppoo xutbay imam mujib joobi di nga dégg li may wax dégg nga laa ilaha illa allah alkarimul fattah laa allah alkarimul fattah laa illa allah alkarimul fattah laa ilaha illa allah alkarimul fattah laa ilaha illa allah alkarimul fattah ngay weer 66 <clears throat> bët bu set rek fexeel ba def ko bët bu set nee nañ ku ko def ren ba déwéen yàlla dana la suturaal da nga mën a am loo génne asaka laa ilaha illa allah alkarimul fattah laa ilaha illa allah alkarimul fattah fois laa ilaha illa allah allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar 314 314 mooy daysun daysun dafa am jaysun am daysun 314 bi am na wuute am na borom xam-xam yoo xam ne dañoo jàpp ne waa Badar 314 lañ moo tax ñoom daysun la ñuy calculer moo tax jàppal loo rek lu ci mën di am xamal ne rek 314 mooy daysun defal laa la illa allah alkarimul fatah 66 laa ilaha illa allah allahu akbar allahuma salli ala almawsuufi bilkarami waljuud allahuma salli ala almawsuufi bilkarami waljuud nga def ko 308 308 mooy razaqu nga defar sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin 308 muy razaqu mooy razaqu baatu razaqu boo ko déchiffré loolu lay wax boo paree nga teg yaa jaamiu yaa waduudu yaa jaamiu yaa waduudu yaa jaamiu yaa waduudu 114 dégg nga muy limu jaamiu 114 boo ko dee def laa ilaha illallah sa xol dana sell alkarim yàlla dana la indil teraanga boo mën a bokk ak nit ñi alfattah di nga ubbeeku laa ilaha illa allahu akbar dana la yëkkatil sa martaba sallallahu ala muhammadin allahuma salli ala mawsuuf bil karam wal judi yàlla dana la defal teraanga maanaam dana tabe ci yow di la jox muy ñëw jaamiu ak waddu dana la booleeg nit ñi te bu ñëwee danañ la sopp tey danañ la amal njariñ kon loolu mooy secret bi nga xamante ne moom lañ ne woon danañ leen ko indil tayaat encore laa ilaha illallah alkarimul fattah 66 la ilaha illallah allahu akbar 314 allahumma salli ala almawsuufi bilkarami waljudi 308 sallallahu ala muhammadin 308 yaa jaamiu yaa wadudu 114 fois mën nga koo saxoo di ko def nee nañ daal ku ko saxoo ren ba déwén jëllaloo ci benn fan ren ba déwén incha allah yàlla dana la may loo mën a génnee asaka ci wàllu ubbeeku ci côté wàllu wërsëg incha allah li ma fàttaliwaat ne dee leen sangu di zikkër di saraxe di suuru di suul bu ngeen ko mënee suural sa kër di sangu di zikkar di saraxe kon loolu moo doon li nga xamante ne euh, danañ leen ko indil kon ñu yem foofu euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu